nanga def yaa ngi ci jàmm xoolal li nekk Saint-Louis problème bii laa fi fekk boo xoolee bu baax ñaari câble yi bii ak bii ñoom ñaar lañu boole woon maanaam bii bii ak bii ñoom ñaar lañu boole woon damaa ñëw fekk ñu dagg ko parce que boo xoolee fii bu baax boo xoolee fii da ngay xool ne fii cutter moo fi jaar lancette moo fi jaar laam mooy laam yi ñu utiliser ñun cutter ba pare dañ koo dagg ba pare poqati ko mu génn ce qui fait que léegi antenne ci kaw dootul am connexion parce que ñaar yi bii bii nii ak bii ñoo war a ànd ñoom ñaar donc nag dañ koo poqati gabier bi yéeg na ci kaw xool na nee na moo ci kaw amul benn problème donc nii la waroon a deme nii xoolal bu baax nii la waroon demee dafa waroon dugg ci biir ba pare dañ koy seere donc gis nga nii la war a demee dafa war a dugg ba sës ci biir mais dañ koo dagg parce que boo xoolee fii bu baax da gis ne dañ koo dagg ak cutter kenn tekkiwu ko dañ koo dagg ba pare xëcc ko donc loolu mooy problème léegi il faut ñu defaraat ko gabier bi lay xaar mu wàcc mu ñëw defar fii quoi donc laaj naa waa sonaateel lan moo indi lii maanaam ñu ni ma ñoom am na ñu fi nekkoon doon peinture pylône bi am na beneen gabier bu fi ñëwoon doon liggéeyal beneen rajo waa RFM yi ñëw nañ fi et tout mais man mënumaa xam kan la mais ce qui est sûr et certain daal mooy lii moom dañ koo dakk waaw moom moo tax ak émetteur bi yéegatul voilà lii lii moo am problème bii moo am Saint-Louis ah waaw maa yónnee léegi ok jaajëf